RMC présente la tournée des Faramareen Wally Balago Seck en live attention les samedis 6 août à Casablanca ak waa ACRM le samedi 13 août à Barcelone ak l'Amaar Event le dimanche août ak des Sénégalais de Almeria tickets disponibles sur www.pmcticket.com ak kookan la ñu ne le golden boy de la musique sénégalaise Wally Balago Seck Fodium le 6 Casablanca le 13 Barcelone le 14 Almeria ñi bëgg dem Casablanca am na bus boo xam ni c'est climatisé aller-retour escale Mauritanie hôtel 4 étoiles dem Casablanca soirée Wally Seck daal di koy dund daal di dellu suwaat Ndakaaru ci njëg bu xéwale waa Casablanca nee nañu seen bos mooy dax waa Barcelone nee leen déedéet ñoo leen di dàqalee fuuf pour la première fois Wally di fi joué waa Almeria ni non non suñu dëkk moo ëpp sénégalais foofu foofu moo ëpp ambiance foofu le cafka bi ne kon les Faramareen vous avez votre bal seen tournée mi ngi noonu Wally ne du leen may dara ma ne ko Balago mu ne ma noo bàyyi ma ak waa Casablanca ma ne ko Balago mu ne ma bàyyi ma ak waa Barcelone ma ne ko Balago mu ne ma bàyyi ma ak waa Almeria dinaa fa def loo xam ni kenn mësu koo gis waa Balago loo wax ci tournée bi yow tamit.